nag bu demee mën na leen a nax waaye ñun doo xeetu ligu ñun suñu ay suñu bopp yi dañoo feddeel ay kànkar loon de yu nax ñu yombul de na xam loolu. bu fekkee day naxaate. Uh-huh. na dem ca kaw joor ga naxe fa foofu waaye fii bu ñu dikkee. Uh-huh. may wax naa ah entre cinquante mille xam nga koo xaalis lay wut waaye day dul. gis nga ban man doomu aadama la yàlla bind mu di ko may di ne da koy xam lu mu jox lu yonent bi du ko jox kenn. ku gaa nga fen te bu ñëwoon fii waat naa ko si dootu ko wax ba yomal jumaata laa ko bar. te su mujjun ñu ngi ko doon xaar ak ay cours yu baax nag ay ngandi cours lañ yoroon waroon naa ñëw bu ñëwoon dootu ko defati. Koukandé yow li ngay wax du dëgg ñëwal comme nee nga da xar géej gi ñëwal ak sa pokaleer yi nga diwoo kenn xamul loo dex yoo noonu ba xees ñëwal comme da ngay xaar géej gi ñun yow rek la noo xaar wala su mujjun yëpp lay xaar lalal nañ la tapis rouge. lu ñëw xar géej gi. Koungheul mënu xar géej gi ñu nag ay waaskat piir lañu suñ jëkkër yi ay mool lañu te ñun duñu nangu ñu xar ko ndax bu ñu ko xaree duñu am fu ñuy liggéey xanaa dañuy yuuxu <laughs> waa jërëjëf. ñu mel ni ñoom dañu bëri si dëkk bi ay naxaade di fen di wax loo xam ne mooy loolu géej gi nga xam ne téeméeri doomu aadama ci lañ nekk di ci jariñu di jël seen wërsëg moom mu am sañ-sañu taxaw ne jour tam da koy xar. salaamaaleykum mbokki internet Mak TV Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax tey nag ñu ngi fii si euh, Soumbédioune comme ni ngeen ko xamee actualité bi mooy lan Kounkané dafa waroon ñëw fi nga xam ne mooy Soumbédioune xar géej gi. ñu ñëw nag euh, démb mu ne annulé na lépp dañuy ànd nag ak sama caméraman max ñu dem xool population su ma jëm nan lañ gisee xar géej Maxa da nga may topp ñu dugg si gars yi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen sant yàlla. Euh, tur bi nan la. Mamadou Fall. waaw Papa tey ñu ñëw fii euh, seet si leen yéen waa Soumbédioune ñu gis benn actualité mu ngi mu ngi daw si si réew mi ki nga xam ne mooy Kunkande dara woon bisu bisu tamxarit dina ñëw Sumbejum xar géej gi léegi loolu ban gis-gis nga si am. kooku lépp lu muy wax bu dëgg fa muy fanaan sax xamu ko fi nga nit bi day wax loo xam ne moom day wut bës xam nga lu muy wut alal bi mu def ci poos mu yóbbu Sénégal nag dafa yomb nax ki nga géej gi ñaar la ko yàlla mayoon kese kaka ñetteel mooy Seydina Limaamu yaa ngi dégg yonte yàlla Yuusufa eh, ferom na ba mu sonalee Yuusufa kooku la ko yàlla mayoon mu xaar géej dem te seytaane ko toppoon yàlla jàppale ko lu ko mooy Seydina Limaam mi noon géej daj ma dëkk mu àndu mu nettu dañ ma dëkk ba mu ñett yoon ma sam foyeet fa ni ko bu fa ab si mu génnee àddina foofu lañu ko denc ku ko mooy sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa la mu waxoon def dafa jeexoon ci yàlla takk tubaab yi nag yóbbu ko nar koo sànki tubaab yi ni ko yaa doo tooñ yàlla doo tooñ sa morom te boo jullee sunu gaal tooñ te boo julliwul tooñ yàlla mu waxam mu wéer ay mbiram yëpp ci yàlla xam ne yàlla ko fi ni yàlla ko mën a jël mu jël der ba sànni jigéen taxaw kabar Kapalates di daw der bi daw mu julli ba pare seulement yéegaat ci gaal gi ñooñu la ko yàlla may waaye keneen ko la wax nii nee ko da fen day fen dafay wut xaalis alal lay wut Omaro ci boppam mooy mooy patron mu Amadou la tudd waa ji tudd Kokande Amadou la tudd Omaro mooy pasarom Omaro soo xam ne bii nit ñi yéen a wax waaye Amadou ñu la taxaw day fen Ndakaaru nag dafa yomb nax fii ñi fi am xam-xam xam nañu leen waaye moom xamul dara xamul lu mu reere sax xaalis yu wut ak jigéen képp jeex na bu nekk fi naa ab sëriñ nga tey xeesal xeesal day dul xamul dara. tey tey nga nekk magu nga nekk magu mag mag euh, ki nga xam ne mooy suma jëm yéen mag ñi loo lañ ko doon xaare yéen mag na ñëw. bu dikkee ay tànkam ak rawale ñun kay ñu ngi toogoon di waxaar bu ñëwoon dañ koy noq ba mu de lu leer laa la wax bu ñëwoon fii ab ñoom la ñu yóbbu ñun kenn mën ñun ñun danoo ngem bu pare ñun suñu suñu teeru bii li fi nekk lépp xam na ko ba ci île bi xamul dara na ñëw ma ànd ak moom dem île ba ma dugal ko foo xam ne bu soobee ànd ak dootul génn da jaay xam-xam waroon naa ñëw bu ñu ko yóbboo lii bu dootul génn xam-xamam fa lay des xamul tus te en tant que sénégalais ban conseil nga koy jox. na bàyyi li muy def bu bëggee mucc bu demee ca dof ya nag nax leen waaye ñun ñun nit ñi mënuñoo nax de dof yi rek bu demee mën na leen a nax waaye ñun doo xeetu lébu ñun suñu ay suñu bopp yi dañoo feddeel ay kànkar lañu de yu nax ñu yombul de. na xam loolu. bu fekkee day naxaate. Uh-huh. na dem ca kaw joor ga naxee fa foofu waaye fii bu ñu dikkee. Uh-huh. mu naa ah entrant cinquante mille la xam nga koo xaalis lay wut waaye day dul. état bi moom moo ñu yëpp parce que sa mbajum ay kilifa ñoo fi nekk man kilifa laa fii laa juddoo ñii toog fi ñëpp samay doom la ñu xam ne yàgg naa fi maa fi bëgg am juróom-ñett fukki at ku kaa bu taamoon si Sénégal ak géej gi nu ñu bare dëkk yi mu ne sëmba jun lay ñëw pour xaaj géej gi mag ñi ñu ko doon xaar te bu ñu amoon lu ñu gënal naka fi état bi àndi ba ñu toog ak ñun ñu wax ak moom mu wan ñu nu ñuy xaree géej parce que dafa am yoo xam ne état bi moo ko war a dindi parce que ñàkk fayda yi warul am ci sunu réew ku jóg rek ak sa wax ñëw andi damay def lii damay def lii bu koy def naka def feneen waaye sa mbëjun fi ay kilifa fi nekk ñoo xam ne mën nañu tur ku kànga la xaw ma te nga bu bu bu ñëwoon fii waat naa ko si yàlla dootul dund si àddina ñun loolu rek lañ doon xaar boobu ba léegi ba ñàkk toog fii di ko xaar bu ñëwoon fii da dañ koy rendi nga fa ñàkk fay ne na nga état bi dindi yii doxalul réew Macky Sall bu bëggee nit ñi respecté ko nag dindi yii parce que yii du cëru gor fu fu mu nekk démb ba léegi sama jun kenn mënu fi am foo jaar ndax nit ñu ñëw ne xar géej géej ga ban man doomu aadama la yàlla bind mu di ko may di ne da koy xar lu mu jox lu yonent bi du ko jox kenn ku kaa nga day fen te bu ñëwoon fii waat naa ko si yàlla ne dootu ko wax ba yomal jumaatu làkk bar waaw ku baax maa lay bu baax am nga ni kooku moom wax dëgg yàlla man depuis actualité boobu di daw man dama ciy gëmul leen si que xamoon naa ne fii lay mujjee rek te ñi am bopp am xam-xam yëpp xam nañ ni loolu c'est di ay wax yoo xam te ni taxawul fenn ku kaane du xar ndox bu nekk ci leket bay xar géej waaw ah, dafa waxoon da def ana lan moo ñëw def ko lan moo tere bu ñëw def ko tey si biir waxam démb bañ ko bañ ko seetaanee nee na ay kilifa ñoo ko ñaan pour que mu bañ a def loolu yow loolu aussi ban gis nga. waaw parce que loolu yëpp li xew ci internet bi yëpp ñu ngi koy gis dañ ñëwoon bu benn kilifa ñaan bu ko benn kilifa ñaan dara moom léegi du fekkee ni daa am kilifa yu ko ñaan dafay génn mu dénoncer kilifa yooyu ni kilifa yii ñoo ma ñaan ba tax ñëwul def loolu. loolu moo raisonnable mais ay kilifa moo ma ñaan gars yi nee nañ bu kenn ñaan su fekkee ni mën na ko kay na ñëw def. wax dëgg yàlla li ngeen fi ñëw te mënu maa réciter lii nii moo tax ma ciy wax sax mais xam naa ne mënul xar leket bu ñu def ndox mënu ko xar. yéen habitant waa Soumbédioune yéen di loolu yéen ban taxawaay ngeen si amoon. non bu ñu si amoon mooy taxawaay boo xam te ni dañ ko doon xaar rek mu ñëw parce que ñun suñu géej gi nii nii mu mel nii ñun dañoo judd fekk géej gi mel nii mosuñoo gis ko ko xaar xarum géej ci kenn lañ ko déggoon mu yontu yàlla Moussa Firawna bëri woon doole lool suñu borom jël ay kiraamaam def ko ci yontu yàlla Moussa mu labal Firawna ci géej ci kàttanu suñu boroom yàlla mais du doomu aadama buy taxaw naan man dinaa def nangam ak yooyu no yooyu c'est ay faux problème yooyu man doomu yooyu de te su mujjun ñu ngi ko doon xaar ak ay cours yu baax nag ay ngandi cours lañ yoroon waroon naa ñëw bu ñëwoon dootu ko defati. tey tey boo amoon conseil boo koy jox en tant que euh, doomu Sénégal yow loo na dem jaamu ji yàlla mu dind yi mu def parce que dafa am benn affaire bu am waaye ñun Sénégal tey daa am loo xam te ni ñëwul ci alxuraan alxuraan ay béjjën yu xonq ak ay ay fud ay jàpp naa ko si lii yooyu ñëwul ci alxuraan alxuraan mooy dëgg te ñu nga xamante ni ñoom la ñu def suñuy royukaay ñu leen di topp yoruñu woon loolu kon na bàyyi yooyu am xam nga daf li gën a métti ci doomu aadama mooy lan en tant que sénégalais nga taxaw wax ci peuple bi yëpp ni dinaa def nangam bis ba jot nga naan non dañ ma ñaan wala dañ ma non loolu gàcce la tey bu fekkoon ni ci sariya dëgg la danañ ko war a tëral rendi ko moom moom moom waratul dund moom parce que déjà dafa kàcc ak luñ ko mën a ñaan it daa kàcc dafa ne woon bu ñëwee su mujjun sottiwul mu dem ut ay solop dem fan gore <laughs> lan lañ koy ñaan sawaay loolu moom oh, merci beaucoup <laughs> noonu la demee <laughs> Kounkandé Kounkandé de dégg na ñuy wax naan nee na day xar su géej su mujjun xam nga moom bi mu koy wax trois mois lu ma trois mois la gis nga géej ki ko doon xaar xaar na ko ki ko waroon randal randal na ko ki si waroon julli julli na si ba pare amul keneen koo xamante ne rek mën nga ñëw ni da ngay def nangam ba nu gëm la man de Kounkandé ba mu waxee ba léegi masaguma ko gëm te te ba la gënoon neex nag ndax rajo yëpp ja si nañ fi waaye ba la gënoon neex Kounkandé tey jii mu dëggoon tànkam fii duñ ko dóor duñ ko saaga waaye daan ko xaar xool ba xam mën na xaar géej wala déet day fen rek li muy wax gëmu ci dara li muy wax gëmu ci dara Kounkandé li muy wax du dëgg li wax dara du si dëgg te ñi ko gëmit waaw dañuy yàq dañuy yàq euh, énergie ñi ñi quoi. démb mu def benn sorti mu ne dafa am ay mag yoo xam ne ñoo ko ñaan njekk yow loolu aussi yow ban gis moom day fen xam nga day fen mooy moom leer na ko ni kenn ñaanu ko dafa yaakaaroon bis bi du ñëw moom yaakaaroon ni bis bi du ñëw moo taxoon mu naan ay bu ma kenn ñaan bis bi di ñëw mu naan den ma ñaan kun kaante kenn ñaanu la. yow ñëwal xar géej kenn ñaanu la de benn sëriñ tamit ñaanu la waxoo dëgg ñëwal xar géej loolu rek lan lay xaare tey boo benn conseil boo xam ne da nga koy jox en tant que sénégalais xam nga ñun sénégalais yi lii dafa dox ba si politiciens yi lii moo dox si pour ñun nax ñu moo tax ku ñu bëgg nax rek nax ñu ndax ndax ñenn ñi suuruñu moo tax lu ñu gis lu ne dugg ci waaw waaye boo suuree dara du fees sa te. nanu bàyyi lu ñëw nu gëm ko nu bàyyi lu ñëw nu gëm ko wala lu nu gis rek ni waaw xam nga yii ni wax yëpp dara amul aaxiru zaman la te nit ñi ñu ne la nuy ñëwee te fi rekki trois mois wala quatre mois wala un an keneen génnewaat leneen lu bees ay sa mu doon actualité kon kaan yow li nga wax du dëgg ñëwal comme nee nga da xar géej gi ñëwal ak sa pokaleer yi nga diw diwoo kenn xamul loo dex yoo noonu ba xees ñëwal comme da ngay xar géej gi ñun yow rek la noo xaar wala sumu ñun yëpp a lay xaar lalal nan la tapis rouge na ñëw xar géej gi nga si am. ah ñun duñ ko may mu di ko xar sax ndax ñun suñ jëkkëri géej la ñu yaakaar ndax ñun jëkkëru mool la ñu rek te mool yi la ñuy tiital ak mareyeur yi duñ leen may te ñun ay waaskat lañ kon duñ ko may mu xar géej gi waaw waaw loolu moom. mooy géej gi am na noonu xanaa ñun ñun lay njëkk a xar doog a xar géej gi. yow yow bi nga déggee ne Koungheul day xar géej gi yow dèjà yow loolu ban ban ban ban impression nga. Ah, ah man de aw ma ci xel ñaar man loolu moom nit ñee koy xalaat rek xëy na dafa bëggoon neexal waxtaan rek waaye moom mënul xar géej gi. géej gi ba ko yàlla di sàkk moom fekkewu ko kon mënu ko xar seke que dafa am wax yoo xam ni dafa jar di bu ko nit waxee sax dafa jar di bàyyi xel. waaw parce que wax wax bu yegg dafa ko moom nit da xaw a am tuuti xel xam nga ne mënu fi fekk sunuy maam sunuy maam ak sunuy maamaat ñu samp fi yàlla def ci géej gi ñu ñun avant ñuy judd ñu fekk fi sunuy maam ni ñu juddoo fekk fi sunuy yaay yaa ngi dégg ñun ñuy sët sëtaanin kon Kounkandé mi ñëw tey mënul xar géej gi loolu moom du wax bu yegg du wax bu normal sax bu nit di war a def bàyyi xel di ko may buzz senegal moo gaaw a may nit buzz nit day jógee fële rek tourné kii dóor ay kii comédien am rek ñu commencé naan diw lii diw lii kon kaa xar géej gi ñun nag ay waaskat piir lañu suñ jëkkër yi ay mool lañu te ñun duñu nangu ñu xar ko ndax bu ñu ko xaree duñu am fu ñuy liggéey xanaa dañuy yuuxu <laughs> waa jërëjëf waaw loolu ñun dañ ko ko nanguloon moo tax tey xoolal fii bët bi bi gaal yëpp kenn gëtiwul dañ bëggoon ñëw rek mu xaar ko nan dañ bëggoon jébalu si moom ngañ ñëpp a taxawoon di ko xaar tey moo nga ne yàq na liggéeyu gaay te ñëwul xam nga Sénégal dafa neex fii Sénégal dafa neex da nga benn petit mara ba bëgg a génn sax day ut bës si loolu waaye ku dul kunkaane sax mënul xalu géeju maam lëg daawur mi tey nag moom xalaloon nañ ko lépp warul woon am buur yi dafa waroon ñëw ñu puusal ko gaal yëpp jàkkaarloo ak ñun nu ñu bëggee dem États-Unis daf ñu koy yombal sax. tey euh, démb mu génn def benn interview ne dafa am ay mag yoo xam ne ñoo ko ñaan bu bañ a def loolu yow loolu aussi ban gis-gis nga seet. mais yow mi ma ko wax sax gëmoo lool benn mag ñaanu ko day kàcce rek lan na ko mag di ñaan si lool dafa war a xaar géej gi gañ géej gaa ngi nii géeju maam yàlla gi la na ñëw xaar rek bu ñëwee xaar gañ moom daf ñu koy yombalal rek. tey nga nga nekk jeune dëkko fi nga xam ne mooy Soumbédioune yéen ban taxawaay ngeen amoon si loolu noonu. taxawaay bu ñu amoon mooy mu ñëw ñu xaalal ko du am benn bruit parce que ñun leer nañu li muy wax du dëgg munu ko deux mois ba zéro août nii rek. waaye moom moo ngi bëgg a yàq bësam sax mënoon na ñëw rek xaar ko bu ko defee man bee bokk naa si ñii njëkk a moom lu mën a bu ne weex na mën a tàll bu ne ñuul na mën a ko ay wax rek. tey tey en tant que boo amoon benn conseil boo koy jox loo koy mu bàyyi mag du mag du fen na bàyyi di waxandu mënoon na nekk ci dynamique bu mu nekkoon saa muy ñëw di seet ci ay làmb saa muy wax xam nga ay affaire yooyu tandus la rek mën nga wax lii la fekk du lool loolu yëpp mën nañ ko ko mën waaye damay xar géej loolu dafa wax ju wax ju garaaw la te ab kilifa du fen moom war na jommale loolu boppam. man loolu mooy wax noonu man mi nga xam nit kese laa ñemewu ma wax loolu parce que su ma ko waxoon daf may wóor na lu mën la waaye moom mi koy wax wóor na ko mënu ko dafa yeb sénégalais yi rek. te est-ce na tamit état war na jël benn benn benn responsable si par rapport ak. kii état lu mu war a njëkk a def mooy fekk ko këram na ko coppat sànni ko si biir kaso bi genre gi ñooy yàq dëkk bi. ñu mel ni ñoom dañu bëri si dëkk bi ay naxaate di fen di wax loo xam ne mooy loolu géej gi nga xam ne téeméeri doomu aadama si lañ nekk di si jariñu di jël seen wërsëg moom mu am sañ-sañu taxaw ne jour tamxarit da koy xar ñun nag ñun ñu nekk mool ñun nangul nañ ko loolu moo tax tey benn gaal gëtiwul dafa doon ñëw rek ñu xaalal ko ne ko defoon li nga mën su ko defee def ñu koy yombal ñun bañ juddoo ba ne ñoo ngi bëgg demee États-Unis tukki ah dañ koy topp rek. ah ok jërëjëf <laughs> non loolu man defuma problème ndax géej gi kiraama yi si waroon am suñu borom ñi mu joxoon ñu war ko def def nañ ko ba pare. pour man loolu xalaatam la wax rek tolluwaayam la wax. voilà man fa ko teg waaw. tey boo amoon conseil boo koy jox loo koy jox. conseil bi ma ko jox mooy xam nga Sénégal nit bu fekkee dangay woote xam-xam. yàlla may la xam-xam pour man waroon nga ko xool si beneen anam boo ko defee loolu di xar ay xalaat xar géej. parce que ñu ngi am feebar boo xam mi ngi fii. sonal lëmbee àdduna. pour man loolu rek jàngat la moom mu def ñaan. fexe loolu jóge fi. ah wala mais toog ba mu neex la nga da ngay xar géej goo xam ne nit ñi si la ñu suturloo bu doon xar la kañ wala def sëñ Tuubaa def ko xar ko ndax toll woon na foo xamante ne moom jekkoon na si pour xar ko yàlla ma wane moom wane na kéema Seydina Limaam fii la dëkk randal na géej wala déet kon am na yoo xam ne loolu moom du maanaam sénégalais ñoo war bàyyi yi ñuy fooye di may nit bës si loo xamante ne amul njëriñ parce que nit ñi dañu war a liggéey am leen lu tal topp benn nit rek muy wax parce que Sénégal tamit dafa métti day gis ay nit ñoom dañuy toog seen ruxu di woote yenent loolu xool loolu lu gën a garaaw loolu moo tax ku kante bu toogee di day xar géej gi tamit loolu nit ñi waruñu se def problème parce que li gars yi wax moo gën a garaaw dangay gis nit toog di woote yenent fii ñi fi woote yenent yëpp ñu war leen topp xam nañ ne ana seen limaam ku ne xam ne def na kéema randal na géej kooku tey bu nee yàllaa ko yoon nit ñi dañ koy gëm mais toog fee nit ñi topp la ngay wax loo xam yow tegoo ko fenn loolu sa naf si rek tamit sénégalais ñoo war a xool leen lu ñuy def dem liggéey te bàyyi benn nit bu ñu may bës amul njëriñ voilà kunkaane de man de sama yaakaar xam naa fi mu nekkoon moo neex si moom rek ndax géej gi nii doonul loo xamante ne nii yàlla lu muy maye xam na bu baax ñu mu koy jox te gis nga kunkaande moom ñi ko sunu maam yeeg sunu papa yi ñoo ko ëpp xam-xam téeméeri junni yoon te jéemuñu ko sax lii nag xëy na doroon doroon yoor rek mais day door a yab yàlla bu nee waaw danga naan waaw moom da doon jéem mais li mu instant day jéem a nax gars yi rek naxul nag kenn boppam rek lay nax moo ngi nii waajoon na ko ay ay ay weeri weeri weer tey moo si des na ñëw gaa yaa ngi koy xaar gaa yaa ngi koy xaar léegi moom moo si des géej gaa yi nii moo nii na ñëw rek. waaw mu def benn interview mu ne dafa am ay mag ñoo xam ne dañ ko ñaan pour mu bàyyi lépp mu sedd yow loolu aussi bañ gis-gis. kenn ñaanu ko. kenn ñaanu ko moom daal moo dem ba mu nekk ko xam na ni li muy li muy li muy wax ay sóob si moom rek munu si dara. munu si dara loolu kese tax mu nanguwul ñëw waaye fii fii nii kii munu si munu si géej gi dara. tey ban nga xanaa daal mu bàyyi li muy def te mu dem uti ji liggéey jéem a liggéey ji. mu dem uti ji liggéey jéem a liggéey ji moo gën muy jéem a nax gaa yi naxul kenn boppam rek lay nax. ñi koy seetaan tamit nekk fii di ko di ko di di ko interroger muy wax lu ko neex ñooñu tamit ñooñu tamit ñu jar a waxaat waxal lañu. ndax ni ndax ni doo ko woo mu leer na la kii nii li muy wax nii mënu si dara xamu si dara nga koy seetaan muy wax rek waaw ok jërëjëf.